xam ni faluñu ko pour nga dafa gën a rafet wala fi gën dañ koo fal ndax dañoo am ci moom yaakaar mu bañ a tas yaakaar boobu. très bien jërëjëf euh, imam. Euh, même question. waaw man de fi ñu toll nii moom xam nga comme dugg nañ ci guuta ba pare. parce que tamit lii ñu dal musiba la. ku ko xeeb rek xeeb nga loo xam ne lu rëy rëy la damay wax ne Macky Sall am na woy wu ñaaw ba noppi. ba ba àddina di tukki. dinañ wax li nga xam ne moo ko fi njëkk a def dàq fi ay élection te tegu ko fenn dul ci bànneexu bakkanam ak ci bëgg-bëggam loolu moo ñu indil jafe-jafe yi ñu nekk waaye wolof nee na bu ndox tuuroo am na lu ciy tegu daal an bàq waaw waaw léegi fi mu nekk foofu lañ toll bu ndox tuuroo daal. waaw waaw. xam nga bu ñuy wax tey yoroo lu may bidon bii nga dem ba tool fu sori. waaw foo xam ne kër. Ah, boo dee doxaat di ñëwaat sax man ngaa faatu. d'accord léegi ndox moom ne paawu tuuru foofu an baax gaaw naan rek. <laughs> waaw léegi waxuñ fu ay robinet nekk. fi ñu toll nii. comme ndox mi tuuru na ba pare. léegi la tegu ci ndox mu tuuru rek foofu lañ toll toll fi ñu toll nii. léegi nag euh, li ci des mooy alhamdulilah comme date bi moom jàpp nañ ko. te yaakaar naa ne xanaa fii ak euh, euh, quelques minutes du delluwaat ginnaaw. parce que man ah, maanaam mu xëyaat la indiwaat yeneen lay rek. comme moom lu ko neex lay def campagne bi fekk mu ngi tàmbali. fekk tàmbaleegul. Mm-hmm. moom mën naa dellu ginnaaw de. Mm-hmm. ndax raison mën na amati. non ah, moom li muy def du raison ah? bay wéy mbuus. <laughs> <laughs> fi mu ne dootul dellu ginnaaw xam man waa ji vraiment man moom ay mbiram waa ay mbiram bi naan ma saa kii da koo terroriser farouchement maa gën a lu yàlla imam mi non non man xam nga tamit waa ji wax dëgg yàlla li mu def dafa rëy xëy na xëy na fi ñu toll dañu nekk ci sous le choc mm-hmm. taxawuñ jàngat ko mais li mu def dafa dafa ñaaw ba jéggi dayoo dafa rëy ba jéggi dayoo. waaw lii xëy rek mu neex la rek sa bànneexu bakkan. Mm. ak say pexe nga dàq élection. Mm. yow tegul fenn. vraiment loolu loolu dafa ñaaw dafa rëy man moo tax yëf yi daal euh, yal yàlla xettali mais xam nga alquran dafay wax ne wala yaxiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi wala illa bi ahlihi maanaam pexe mu bon nit bu fekkee pexe yu bon rek lay pexe day dem ba pexe ba ba pexe mi këpp ci kawam waaw tey lii ko dal nii yépp pexe rek moo ko teg pexe rek innama alxiilatu fi tarkil xiyal moom kiyam yépp makru sëy la doon doxee di naafaagaagal kii kii du bokk yéenewul kenn ndono boppam la gis njabootu boppam la gis tey mu ngi ni dem na ba ràbb boppam comme ni jargoñ di ràbbee boppam noonu la def boppam léegi nag ñun li nga xam ne moo fi sës euh, def naa jëratul xóotal ci wàllu droit parce que comme jalgati nañ constitution bu ba pare léegi euh, conseil constitutionnel day ñab-ñabal rek pour sauver situation bi xam nga ku ne xam ne ni lii fi xew moom dara normalu ci waaw d'accord waaw xam nga fi ñu toll nii même moom sax ci problème yi la bokk moom conseil constitutionnel mais situation bi fi mu toll nañ fexe ba génn fii ñu nekk waaw parce que man ba léegi conseil constitutionnel mënumaa comprendre lu tax ñu xañ Ousmane sonk mu ñàkk bokk man pour man loolu du droit man loolu man ay mbir la daal ay ay mbir la li tax Ousmane Sonko bokkul ci élection yi man mënul dugg ci sama bopp bi conseil constitutionnel loolu daf il faut mu expliquer ñu fan la ko teg à l'avenir léegi nag situation bi comme ñun dañoo dem a dem ba nga xam ne bu ñu amee tuuti sax baax na ñun daal ñàkk lañuy bañ léegi moo tax léegi ñoom seeni mbir duñ ci xóotalati comme jàpp na dat rek nit ñi dañuy gëm ci yeneen yi nga xam ne def na ko mais léegi élection yi euh, campagne bi mu ngi tàmbali tey nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim yeggali ci ak alhamdulillahi rabbil alamin élection yi bañ a am sàcc dégg nga ñu doon def ci élection yële di daweek ay kayitu jàmbur ak di bañ di ñu naan kees yi dañ koy tëj kenn du ko yi tappale yi amoon ci législative yëpp ñu fexe bu mu am ci biir ngir yàlla. surtout tooñ bañ am ci biir campagne. waaw tooñ waaw tooñ waaw. tooñ bañ a am ci biir provocation bañ a am ci campagne bi dégg donc loolu da man daal maa ngi sant yàlla ci li amagum mais Macky Sall moom feeg génnagul pale bale man sama njort day ñaaw ci moom toujours rek. njort lu ñaaw la am ci moom. d'accord kon gannaaw ba 24 mars moom la ñu jàpp ngir euh, élection yi am question bi tontu nañ ko euh, xalaat yi itam ñëw na euh, fi mu ne kay campagne bi mu ngi démarrer à minuit ñu ngi ko wax tout à l'heure li tax tout à l'heure incha allah wax nañu ne. tooñ bañ a am ci biir campagne bi parce que am na ci campagne bi ñu weesu am na ko ci ñàkkoon bakkanam defe naa ci Tambacounda ak candidat bu pur bi échauffourée yu fa amoon ba kenn ñàkk ci bakkanam defe naa ne mën na ñàkk ci campagne électorale ndax feet la ci askan wi nga xam ne ñoo war a fal seen euh, seen euh, seen njiit euh, ci poñ boobu la ñuy dugg jeexalee ko balaa ñuy ñëw si suñu ñaareelu thème muy campagne bi naka lañ ko war a dérouler waaye itam sénégalais ñu ngi xaar ay programme defe naa ne programme yi ñu proposé bi la yoon candidat bu nekk jot nga joxe sa programme defe naa ne Euh, élection bu nar a sérieuse la nar a doon donc euh, organisation bi aussi dafa war a suivre ci loolu décider nañ gouvernement bi am na ministre de l'intérieur bu bees euh, muy Makhtar Cissé Makhtar Cissé lan la ñu mën a yaakaar en termes d'organisation à l'élection présidentielle ñu def benn tour de table ñambaasaale ko campagne bi naka la war a mën a demee li nga xam ne mooy programme yi ñu def benn tour de table ku ci ne joxe ci xalaatam euh, lu mën a defar euh, balaa ñuy jàll si ñaareelu poñ bi imam waaw campagne bi daal man maa ngi ci dénku candidat yi ak ñi leen di topp ñu bàyyi xel ne fukki fan ak ñett la du loolu la waaj wax même bu doon ñaar fukki fan ak benn am nañ loo xamante ni jaru ko fi yaa ngi wax bakkan bu génn àdduna mais fii am nañ fi campagne ci Grand Yoff booy seet keroog Youssou nduur dañ ko rawale ba aéroport euh, Mame Mbaye Niang de te loolu li ko waral mooy ni waroo dugg Grand Yoff war naa dugg Grand Yoff te campagne bu xasee ubbi njort naa ni kenn ku nekk sañ na déplacé wu limite amul ah, déplacé wu doxalal sa gox te vraiment diggante bi ñaar ñi doon dem bokkuñu woon benn jëmiñ dañu mujj tase ci pont bi Eh, eh, mbir ma daal di jolli la fay xew xew fa. a am. mais mais loolu mooy li rafet parce que gis gis nga président Macky maa ngi rappelé wu ci ba la taseeg Abdoulaye Wade ñu joxante loxo. Abdoulaye Wade ne dama ko yërëm sax ak ñetti otoom yi <laughs> ak ñetti otoom yi xam nga loolu. Abdoulaye Wade defu ko pour saboter ko sax da koy da koy def pour wane ni. lii après élection yi euh, jàmm war a am. daje bi ñuy daje jàmm war a am. Mmh. mais foo gis ku yee fitna. moom moom xawma noo ko mën a classé waaye bu ko jàppee ni nit ku baax la xam nga di campagne jël say oto si dugal ci ay gourne dugal ci ay jaasi mais naroo jàmm naruloo jàmm te beneen man jàpp naa ni campagne sax euh, saawolof wallaay jërul wut ay garde corps bu fekkee ni rek wax wax wax nuñ ko tuddee ti emploi du temps wax programme comme ni ñu ko defee tey woo ñëpp ñu journaliste yëpp tase ñu exposé suñu programme wan leen ko bu ñu génnee tasaare programme boobu li ma war a doy man en tant que ki bëgg jomaay falu mooy programme bi jomaay indi ànd kook euh, ni ñu koy tuddee ci coalition jomaay mhm. muy cent cent cent onze partis yi nga xamante ni ñoo ànd ak jomaay mais vraiment ñun loolu la ñu war a gën a tal que di seet kii moom a xas kii moom a sànni xeet kii moom a no yooyu esprit yooyu daf euh, esprit farwees yooyu daf fi war a dañ. cent onze bi topp na leen de. non 111 la ñu am tey kenn mosu ko gis drame. non attends attends tey ci saal bi li lay wax imam non maa ngi dégg maa ngi ñëw signe bu rafet la. Diomaye dellu siwaat na moom laa bëggoon a mujjee. allahu akbar dellu siwaat na tey. tey la ñu am bi kii ñëwee nu ñu koy tuddee ti euh, Abdourahmane ci la ñu marqué 111 parti yu ñëw pour coaliser. moom lañu duggee ci saal bi présenté ko nit ñi présenté programme bi. mais mën na ko romb. <laughs> non 111 taxaw waaw mooy seen ba. waaw fiche ba ba léegi day dellu si waat rek laa taxaf ba day dellu si waat rek. waaw laa taxaf innaka antal aala laa taxaf mooy bu ragal. Uh-huh. yow yaa féete kaw lépp. jomaay mooy féete kaw lépp incha allah. ndax signe bu doy waar da cee xew. muy li may wax ci campagne ñu bàyyi xel ne campagne du xeex du xuloo uh-huh. caravane Amadou Ba léegi lañ ko la ko ay gros gros bras tasaare. Hmm. te waaye biir permanence la jëmoon biir per seen.